fi may commencé mooy dëkk bu toll ne Touba ak ni mu toll foo dem santare nga fa Bambey am na fa Njaarim am na fa am na Dakar am na Mbuur waaye Touba ak dayo bi mu toll ak kilifa yi fi nekk ak li fi nekk ci handicapé ak li fi nekk ci ay silmaxa mënuñoo fexe ba am santar loolu daal mooy li ma jëkk naqari moom ci Touba bu ma sañoon moom loolu danañu ci jàppale bu baax a baax a baax ndax gis ga ko jigéen ñi kenn ku nekk jàngati sa métier ba man ko abikan mboolem ko fi tagalu tey moo la defal kon xam nga ne ñooñu jàmbaar lañ cere yaa ngi nii mboolem cere ju fi tege rek soxna May Mbàkke moo ko defal ak équipe am yaa ngi nii soxna Jaal Géey moo ko defal ànd ak équipe am demee ne ko yaa sooda Géey na koy jaay ñoom ñëpp jàng nañ seen culture ba man man nañ seen métier waaye amuñu fan lañ ko defee kon nag loolu ku ñu ci jàppale te yàlla rek tax mooy sunu bis bii tey mm-hmm. bis bii nag tey ku ci bégul tey ma xam ne du toog bég baaba dal mm-hmm. ndax xëy gis sa tase sa menn mbokk handicapé rek sàkkantuma laak tey xoolal li fi tase tey mm-hmm. muy silmaxa muy handicapé ñëpp dañoo bég tey ñi nga gëjoon a gis ak ñëpp danga leen a gis tey sama xol dafa sedd tey di sant nag Baye a Gueye mii ndax Baye Gora Gueye mii ku mat a sant la ndax day jëwrin joo xam ne ku mat jëwrin dañuy soññ bu baax di soññ taan buuba ñoom ñi ak soxna may Mbàkke mi ne leen jàpp leen maanaam jëmmi jëmmi sëñ Muntaxa la ci jataay bi ndax bis bi xat na Touba fu nekk la nit di dawale otoom li tafaa waxoon laay fésal ay Mbàkke Mbàkke ñu wër Touba lañ nekk tey jii fii waroon naa xat du doon ay handicapé kese kon ku fi nekk jëmm sëriñ Touba war nañ ko tàccu xam ne xat na lool lool lool lu cin bokk xat-xat bokk xorom ñaanal leen sëñ bi handicapé bu ñaanee mu nangu ñaanal leen sëñ bi yal na yàlla way fal aw yaramam dama kontaan ndax tey jii na ma yàlla jéggal warul woon a doon benn mbàkke mbàkke ci baas bi maa ko wax man abi fi ñu ko waxee nii ak ñi ko dégg fi ñu dem lu ñu am sole nañ ko gaasuwaal fu nekk dem nañ fi tey lii waruñu fi woon a wéer waaye nag ñoo ngi koy ñaanal yal na xolam sedd ba bu déwénee dina xam ne yokku na ci barkeb sëñ Tuubaa may siyaar eh, ñëpp nag di leen ñaanal ñoom di wax Moustapha Thiam yow it wax dëgg yàlla liggéeykat nga macha allah am na loo xamante ne du sens mérite la yow bu ñu la defee président fédération war nañ la ko def li nga liggéey avant ngay doon président fédération moo ëpp sax fi ne li nga liggéeyagul ndax yow yaa boole handicapé yëpp bañ nekk benn nga doog a doon président fédération. lépp lu nit xam yaa ko xamal fu nit aw yaa ko fa awal te booba nekk nekkagoo président fédération ñoo la fal yaa ñu neex ñu fal la ndax danga koo wane li jaal lay laay waxaat yaa ko wane di sant uh, sa soxna bu njaay fi say tànk aw fi la aw li muy def ci handicapé yu ndaw yi ñëpp teg nañ ko bët handicapé yu ndaw yi seen yaay sonnatul fi ñu toog la ñuy toog ñu indil leen ay rafetaillement handicapé bu ndaw tut ndax Seynabu ndax soxna bu Njaay ak ñi mu àndal may jéggulu nag dama waroon ne sama xol dafa tàng tuuti nag bi may wax moo tax jiitalu ma ki nga xam ni moo ma tax a wax muy soxna May Mbàkke diñ ko ñaanal bu baax a baax a baax yëgam yëpp yépp handicapé la dafa xaw a jàpp tuuti moo ko tee ñëw waaye kon jataay bi mooy jataayam mooy jataayu handicapé ndax handicapé rek la yëg maanaam liggéey bi nga xamante ne moom la may liggéeyloo ci handicapé yi may sama xol sedd na ci ci handicapé yi ñàkk ñu fayda ñu seen bopp am nañu respect nangu nañoo leb mais la lebee fay nangu nañoo liggéey mais xamuñu fu ñuy aw ndax Touba joxe sarax rek lañ xam te ñetti beeg suukar lay doon ak miskit ñetti beeg suukar lay doon ak miskit bala ñu laa dimbale da ngaa dee bala ñu laa dimbale da ngaa dee kër sëriñ boo dem di siyaare. soo solulub jes neer doo gis sëñ ba dañ lay puus làq la sëñ ba la tax a jóg te say soxlaa lay yëkkati loolu la ñuy def ñoom loolu la ñuy def yàlla mi nga xamante nag moo ñu la fañal yàlla ñu may fu ñu aw ba xam fa ñuy teg sunu tànk ba bu buñ sonnee ëllëg sunu njaboot duñu sonn kon maa ngi siyaar ñëpp di siyaar Omar Cissé Ousmane di siyaar ñëpp daal ma limee damay juum maa ngi siyaar ñëpp kaw ba suuf di siyaar yaa buuba ñang yaa antagee soxna May Mbàkke ñoom ñi nga xamante ne dañ ñoo doyloo doyloo goo xam ni am na commencement waaye amulub yemukaay ndax mënoon nañ ñu gisuñu dañ ñuy xeeb mais ñoom ñooy sunu lépp ñooy sunu ndey ñooy sunu baay ñooy sunu xarit jërëjëf maa ngi jégalu ñëpp di leen siyaar di la wax ne kontaan naa ci sañ-say na. Euh, mbay ñaan waa jotaay bi baax ñu ñaanal bu baax Serigne yu Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq moom rek la handicapé ñi mee dawal puus puus ba ci saalam saalu biiru néegam nga dawal fa sa kuufu sëñ Abdou Karim kese kenn keneen koo ko mën a def beneen maaraan na ko wax sëñ Abdou Karim dong la handicapé dawal pousse-pousse ba ci saalam te waxuñu la génnee ko keneen koo fi dem danaan la garé sa pousse-pousse ca biti kon nan ñaanal bu baax sëñ Abdou Karim suñ borom guddal fanam bu baax ndaxte ñu ngi taxawu handicapé yi daaw la génnee pousse-pousse yu bëri ne ko am pousse-pousse na nga indi ma jox ko sama mbokki handicapé yi kooku kooku nawloo na handicapé yi kon ñu ngi koy ñaanal bu baax soxna abi lu am solo nga wax jataay bi waroon naa fees dell ak i mbàkke mbàkke ndaxte it ñoom ñoo fi nekkal sëñ Touba te fii yoon wi fi nekk nii ñaara fi nekk état ak yoonu murid man man loolu laa gis kon jataay bi wax dëgg yàlla waroon naa euh, yaatu lool mbàkke ak i mbàkke mbàkke waaye sëñ Basiru teewal na leen fi waaye nag mbàkke day ñaan yow suñu borom yàggal sa taxawaay bu baax Euh, dafay am solo lool jataay yi ñoom ñu koy fekkee dafay am solo jataay ñoom ñu koy fekkee ndaxte bëri nañ ay ay ay pakk-pakk ci yoon weeg yu mel noonu waaye nag yëpp ni ko sawaay waxee rek bëkk néeg daal moom suñu digganteeg kilifa yi ñoom ñoo ko dox kon nañ kilifa ko koo xam ne suñu Basiru ñu ngi la koy yóbbante ñu ngi ko mën a wax ñu dimbali ñu ñu ñuy wax suñuy problème ci kilifa yi ndaxte it loolu daf ci am solo am na ci loo xamante ne bi état waaye am na ci loo xamante ni ñoom ñooñ ci mën a dimbali kon ñu ngi leen koy yóbbate bu baax balay sax li ci def ñoo ngi koy yóbbatee suñu Omar Cissé ci taxawaay bu rafet bi euh, ñu ngi jégalu bu baax mënoon a bàyyi ba war a jël kàddu waaye euh, solo ab yi dafa maa tuuti ndaxte li mu wax dafa am solo jataay bi waroon naa yaatu bu baax euh, waroon na yaatu waaye nag macha allah di sant suñu sooy ci taxawaay bu rafet bi mu taxawee diggante Touba ak Mbacke fépp la ko jëmale. ndaxte ku boole fukki raison ak ñeent di ko taxawal ay ay bisi bis kon kooko li muy def du liggéey bu ndaw kon ñu ngi ñaan yàlla na si borom guddal sa fan bu baax day mel ni bu fekkonte ne doomu mooy tànn bind boppam walla di choisir nu ko neex mu mel ah kon kenn ku nekk nu la neex mel waaye suñu baroon noppee ci lépp te léegi-léegi mu jël lu rëy denc ko ci jëmmu làq ko loo xam ne xel da koy fakk suñu borom dana faral di def noonu moo tax ci alxuraan muy faral di wax ne wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum léegi-léegi danaa taaral mbir mu rafet lool boo ko gis defee ne lu neexan nga ci waaye sax bu ngeen ci fekk rek fekk ci musiba waaye léeg-léegi ma defar saayiru mbir mu niru lu xaw a mel di naka sudul noonu ci ci bët waaye fekk dëxëñ naa ca loo xam ne ku ko xamoon danga koy njëkkanti loolu nag jàmm bi nga xam ne moom la suñu borom bind mu mel noonu moom mooy xam boppam rek boo la nit ñi umpalee it umpale gi la nit ñi umpale ndax ku umpale boppam ku umpale jërul mu lay naqare ndax nit ñi duñu umpale seen bopp ba noppee ku umpale boppam nag moom bu la umpalee jërul mu lay métti waaye yow yaa xam sa bopp rek yoonu yàlla itam dafa xaw a niru loo xam ne seytaani waxtu bu nekk da koy làq lu ngërëmal suñ borom nekk moom li ma man a waat mooy ni ko soxna si waxee léegi bëri na ci kilifa yoo xam ne bu ñu xamoon ne jotaay bi nii lay tëdd kenn du leen fi jiitu waaye yu mel ni pexe seytaane da ciy lalo ndax ginnaaw ngërëmal suñu borom a ngi ci rek seytaane yéenewul ñëpp am ko moo tax nu mu ko mën a gàllankoor rek dana ko di defee waaye ab tàmbalee mel nii rek waaye man de ni ma ko yëgee ak ni ma ko gisee gis naa ne des na tuuti suñu borom dana leen yokk sutura sutura soo xam ne dootu leen ñee kenn ku yàlla bind man loolu yëg naa ko jotaay yëg naa ko te loolu dootu yàgg dara bu soob yàlla ndax metti na lool nekk ak say moroomi nawle ñëpp xam si situation bu wér ah ba noppi it réew mi moom ku ne xam ne situation réew mi ni mu bindoo loolu jëru kenn di ko di ko leeral suñu borom da leen a nattoo bala ñoo mën a jëf faw day fés te joxe joxe moom suñu baroon dafa dafa taamu sirr baax na waaye alaaniya baax na waaye nag joxe ko ci ak nëbbu nga moom moom rek mu seeru ko da koo gënal ci joxe yépp nit ñi dañoo jàpp ne jaamu yàlla joxe dañ ko war a def rek ci saa bu ñu amee alladina yunfiqoona fi sarrai wa darrai la alquran wax sëñ Tuubaa nee na wajaal yamiini kasxaabin fii saxaa maymunatan fii shiddatin wa fii raxaa suñu borom yàlla na nga ma dimbali sama ndeyjoor bii di tabe waxtu bu nekk bu mu xàmmee jamono ju neex bu mu xàmmee jamono ju naqari yéen war ngeen a xam ne su fekkonte ne mbindeef yàlla ngeen yaakaar kon seen dund nax bu yàgg waaye xam ngeen yàlla la leen teel boppam loolu jant bu jant bu nekk rek fi ngeen di xëyee ba fi jant bi. di di àgg ci sa wàll tisbaar di jot loolu du ngeen ko yëg ci seen bopp saa bu seen xar kanam xii ne yàlla fekk leen foo xam ne da ngeen xam loolu pexe suñu borom ma fa yegg waaye pexe pexe pexe doomu aadama yeggu ci loolu nag kon li jaadu woon mooy ngeen delloo si ngeen delloo cant gi seen borom rek te xam ne li wolof naan la booy daan dundee ba sax sikkin xamu nu mu ko àggalee mën na caa mën na caa woy ba faatu yàlla na yeex waaye lii moom ak cant rek ngeen koy soppale bu leen ci booleeti dara luy niroo ko njàmbat doon de sax amu ci waaye doomu aadama léeg-léegi li ne ci xolam faaw mu génn ko loolu rek la état bi nag fàtte ñi nga xamante ni si ñoo féete fii si Touba doon ay handicapé maire bi tamit fàtte leen keroog ñun ñii ci ndigal Serigne Mountakha kuréel lamp international xidma ñoo jël ak dund ceeb ak dëwlin ak macaroni ak vermicelle la àndal ñoo indi leen ko ñoom ñii ci ndigal mun Mountakha kon la ma waxoon ni ñun xaaruñu état. xaaruñu maire yi ay Baye Fall la ñuy ñuy liggéeyal Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall loolu moo wér moo tax na may yóbbante Serigne Cissé jàmbatuñu waaye dañuy yóbbante ginnaaw yaa fi nekkal état du Sénégal représenté fi action sociale sama xam la bu baax gis tamit liggéey bu am solo tamit booy def waaye ngeen xam ni loi d'orientation sociale relative à la promotion et la protection des droits des personne handicapées bi Sénégal signé waa Touba ñoom ñi gisuñu seen bopp. handicapé tu Touba xamuñu ko sax man mii maa doon na ba ma leen ko laajee xamuñu ko tey jii bari na place yoo xamante ni si ñoom ñoo ko moom tàmbalee ko ci bis yi di di ñu romb fii place receveur yi ñoom seen place la war nañ leen mën a dimbali respecté ak ak yelleef ak loi dëkk bi parce que maa ngi koy wax démb ci waa Faneuil des Marènes am na loo xam ñu bu ko seetaanee taxawuñ ci soññewuñ ci ba léegi bu ci ñi nga xamante si ñoo yor wàllu woowu àddoo ba classé commune bi ci commune bi daaka jalgati ak ay yelef doomu aadama yi ci Afrique mbaa ci àdduna bi ñun lay njëkk a nakari en tant que ay Baye Fall parce que handicapé yi nag dafa am loo xam ñoom ñoo ko moom tout temps yi am ko kon tey jii loolu Touba mooy fi nga xamante ni si lépp lu baax fi la war a njëkk a tàmbalee wàllu waaye waru fee mujje moo tax na ñuy soññe rek jàmbatuñu dañuy sant bu wér waaye ñuy soññe ñu xam ne li fi nekk fii ak Pastef bi ñu am te bu doon séddale Sénégal tey jii lu jëm ci social kenn waru leen ci ëppale ñoom ñii kon waruñu leen cee ginnaawal ñoo leen santaat baax nag di leen gërëm. sëñ bi nga fàttali ñuy rek tur bi. Bassirou Mbacké Abdoulaye tey ñu gis ne euh, bés bu mag boo xam ne handicapé yi ñu koy amal ndax mën nañoo xam lan moo waraloon sa teewaay. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuyu bu baax di leen siyaar euh, noonu nag dañ fee ñëwoon ci ndigal pour sunu waajur sunu kilifa sunu sëriñ sëriñ Fallou Mbacke mu sëriñ Modou Fatou Khary moo fi moo fi bëggoon ñëwaat boppam sax tey ji waaye maam ay yitte yu far yoo xam ne mënu koo boole ak ñëw bi waaj na ko sax ba tey ba mu demee ba mu wóor ko ne loolu mënu koo boole ci la wax ne nañ ko teewal ci jataay bi moo war a suñu tànk tey fii ci jataay bi waaw. loo gisee taxawaay bi nga xam ne handicapé yi am nañ ko donte am nañ jafe-jafe ci wàllu dox ak yu ni mel waaye teewut góorgóorlu bi ñuy góorgóorlu ci dëkku sel bi di Touba. handicap moom ñi xam dañu xam ne handicap du nekk ci ay cër waaye yooyu dañoo xam ne handicap moom ci bopp la loolu ñu xam xam na ko waaye dogal suñu borom la ba nga xam ne moo jiitu nga xam ne yàlla mooy ki nga xam ne lu ko sañ lu ko sañ lu ko neex mu def kenn du ne ko lu tax nga def waaye li ma ni ma waxee léegi rek ci biir waxtaan suñ borom dafa mën a denc denc mbiram saa bu jagalee mbir ba jagal ko bu mu àgg ba biiru da koy laaxal loo xam ne koo gis man nga ko xool ci saayir bëtub xeebel fekk dëxën na loo xam ne kéemaan la loolu ci lay wax ci alxuraan naan wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum di leen naw bu baax a baax di leen ñaanal taxawaay bi ñu am itam ñu gën a booloo gën a boole seen bopp gën a doole suñ ko defee te organisé rek suñu borom dana leen taxaw dana leen dimbali bu am na ci rafet njort am nañ ci yaakaar baax a baax rawatina ci dëkk euh, bi tey yaa bi nga xam ne tey dañ koo jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo di handicapé euh, di leen jox nag ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy soxla tey nga jot ci ban yëg-yëg nga xanaa kontaan rek ndax handicapé jox ko pousse-pousse mooy jox ko oto rek ndax yëg-yëgu handicapé bu amul pousse-pousse Euh, lay nekkaat beneen handicapé même pousse-pousse bu yàqu woon tey ji rek handicapé ngay doon waaw. noo gisee bis bi nga xam ne euh, soxna Seynabou mi ngi koy jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di handicapé. waaw soxna Seynabou moom lii nii rek ngeen gis li jàll moo ëpp comme li ma waxoon ci sëñ Moustapha rek ndax xam nga euh, sëñ soxna Seynabou li may wax rek di ko jën a jéggalu mooy sëyu valide ak handicapé bi muy sëy ci ñun moo gën a sedd suñu xol ndax Moustapha mooy borom këram mu nekk valide xam nga foofu kon xeebante amu fa. fois xam nga valide ak handicapé yenn saa yi dañuy xeebante mais xeebante boobu génnul foofu ndax euh, bu fekkonte ne xeebante bi dafay génn waxuma la mu nekk euh, di di sëy ak mais du du du ko nawloonte sax même bu yàlla dogalee sëy bi du ko nawlente bay du duggaat ci biir handicapé yi kon loolu moom rafetlu ko di sant rek di ñaan yàlla mi nga xamante ne moo tax muy def ba dugal ko ci moom taxaat mu am yëgu-yëgu dimbali handicapé yi yal na ko yàlla fay. ngir jeexal bu dee Touba euh, handicapé yi lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen di jànkonteel ak ngeen na bëri na lool nguuru senegaal liñ koy ñaan mu xam ni handicapé yi ay citoyen lañ dañuy wate dañoo yor seen ay pièces di fal di folli war bokk ci lépp. bu dee ci projet yi handicapé boo lebal projet mu fay la bu fekkee te ni ci liggéey la formation yi handicapé boo jàngal métier mu mu mu mu xam ni jàngal nga ko métier dana toog place ndax handicapé bu ne am na loo mérite sama salon laa yoroon salon handicapé moom laa yoroon ñii ñëpp maa leen defar kon handicapé euh, Sénégal war naa xam ni handicapé ci askan wi la waruñu leen a xeeb waruñu leen a yeb waruñu leen a boddi mais ñi leen boole bari rawatina fi ci Touba fi nga dëkk sax da doo bokk. doo bokk na ma yàlla jéggal ndax nañ la war a jàppe dëgg dooni jàppee bu dee oto la boo yéeg boo yoree pus-pus doo dem bu fekkente ni beeke nga yor doo dem ana waa avance la ñuy wax daa gaaw doo yéeg même ba ci xale yi handicapé yu ndaw yi mënuñoo jàngi ndax Mbàkke Tubaay lañ war a dugg te Mbàkke Tubaay du ñebub la fañ ndax boo arrêté ñu lànk voilà ah, lu yokk ci noo gisee bis bi nga xam ne soxna Seynabou tey amal na ko. ndeex rek cant ko rek ay ñàkk ci kon daal yéen ñi gis ngeen ci seen bopp. daal waaw waaw daal waaw. yéen lan mooy seen i jafe-jafe dëgg dëgg. oto yi rek. suñu lànk loolu loolu dong. loolu dong oto yi rek la. soxna si tur bi nag. Dial Guèye Dial tey ñu gis ne bis mu mag boo xam ne euh, soxna Seyna bu organisé nañ ko di jàppale handicapé yi ci ay jumtukaay ban yëg ngeen jàpp. ah xanaa kontaan lool te lii yàgg na koo def def na ko defati ko ndax man man mii di wax ak yow sama doomu caami ña nga ne ñëw na ba kër ga andil ko ay xéewal jàppale ko ci yu bari ba gis nga ko tey lim gënoon a bëgg muy puus-puus da cee xar jënde ko lu seer ñëw jox ko boole ko ay kuus boole kook bonbon. xam nga ne loolu te man maa ko waroon a def wala papaam te mënu ko kon ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ñaanal fi mu bëgg a yegg yàlla na fa yegg ak njabootam di ñaanal sëñ Safa ndax lii ñuy def yàlla jëmmam rek la moo ñu boot moo ñu yiir moo ñu won yoon wi ñuy liggéeye moo ñu teg ci yoon kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax ak di sant soxna May Mbàkke mooy wax dëgg yàlla jàpp na ci liggéey bu baax a baax a baax waaw ndax euh, dañ ñuy lebal xaalis ñuy fayeeku di di di fay di leble di def ay projet kon xam nga ne loolu jàppale ci bis bi. voilà ni ñu gisee handicapé yi tey ak bis bi ni ñu mel na ni ñoom tamit bàyyeewuñ ko. mu déedéet bàyyeewuñ ko kenn ndax tey dañoo jiital sax suñu defarkat muy abikat waaw tey moo doon ku fi tagalu rek moo la defal macha allah kon xam nga ne handicapé yi comme ni ma ko waxee rek am na métier waaye moyen lañ amul moyen bi nag première base mooy centre. te ñu ngi koy laase ñëpp nag rawatina nag waa Touba ca nga xam ne boo gisee ni ñu defee tali yii nan ci boole nag handicapé yi ñu defar leen centre boo xam ne tey ku soxla handicapé tay fekk leen fa xam nga loolu da ciy baax. mu mel ni wàllu jàng mi ci xale yi tamit am nañ ci jafe-jafe. wàllu am nañ ci jafe-jafe trop ndax am na ci xale yu bare yoo xam ne moom wàllum jàng yi am nañ ci jafe-jafe ah, wàllum kayitu juddu weet am nañ ci jafe te loolu dañ cee war a taxaw ba lii coono bi ñu nekke sunuy doom bu ëllëgatee ñu ban leen a dal. sëñ Modou Thiam. sëñ Modou Thiam. waaw ah. waaw tey noo gisee eh, li ñu leen jàppale ci ay jumtukaay. xanaa kontaan di sant yàlla. Mm-hmm. di sant soxna Seynabou Ndiaye. Mm-hmm. ak Tafa Thiam. Mm-hmm. ku fi taxaw rek ñoom lay sant. di leen gërëm. di leen ñaanal sen xiiway yokk ak seen wër. di ñaanal seen abi bu yàlla yàggal ko fi lool te laa doon sant. man ne moom damay sant ñëpp bu ma ci yàlla si yonant bi salallaahu taala wa salaam sant sama ñaari waajur sant boroom dëkk bii di sëñ Touba man moom sama cant ñëpp laa koy sant ndax tollu woon naa foo xam ne rek waa réew mi ñoo ma jàppale ba tolluwaay néew ma jeex na waaye am na lu ci dañ di sant Tafa sëñ Tafa Thiam ak soxnaam sii di soxna sëy Seynabou njaay di sant ñëpp nag kilifa diina ya kilifa aada ya xam naa xàmmee ngeen ma bu baax maa yaay handicapé yi waaye wax dëgg sant naa ñëpp daal ku lim juum waaye ñëpp laa sant kilifa diina yeeg kilifa aada yeeg kilifa ye ñëpp ñëpp ku ne jàpp na ci man ñëpp la sant fi na daal ci des mooy mbaa mooy dund bi nag moo ci des ku ma jàppale ci dund rek yàlla fay la. soxna Seynab tey mu mel ne bis bu am solo la boo xam ne organiser nga ko ngir jàppale euh, ndawi handicapé ndax mën ngaa dellu si ci solo ndaje bi. waaw soxla ndaje moom te dañoo woote woon rek dimbale xale yi ci ay pousse-pousse ak yooyu yemuñu sax ci xale yi ndax gis nañ mag ñoo xamante ne soxla nañ ko euh, ñàkk luñ demee maanaam wàllu pousse-pousse bañ jox leen ko. xalaat bi nag moom euh, bi may doog a kii association bi man sama borom kër laa waxtaanal da ko damaa bëgg daal jàppale xale yi nga xamante ne ay handicapé lañ. yàlla dogal nag mu nangu ko d'accord ceeg man euh, waaye nag yëmatuñ sax ñun ci xale yi. yëmatuñ ci xale ndax parents saa yi ñu gis soxla soo xam ne magu handicap soxla na ko ñu taxaw ci. mu mel ni def ngeen recensement bi ba xam xale yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba rawatina jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu déplacement yi. waaw def nañ recensement bi def nañ recensement bi ndaxte ñu ngi sax di gëstu xale yi war a jàng ba bind nañ leen ba pare ba ñu ciy dox ay jéego. ndax euh, bokk na ci li ngeen di sàkku ay bërëbu jàngukaay ci xale yi ndax euh, am na ci bërëb yoo xam ne mënuñ caa jàng. waaw ñu ngi koy sàkk moom loolu moom koy sàkk ndax xalaatoon nañ fi sax pour dem ci sëñ bi jéem a xool nu ñu waxtaanee ak moom mu jàppale ñu ndaxte wax dëgg yàlla soxla nañ ak ndimbal ndax am ñuy def bonne volonté yi def waaye nag euh, bëgguñu rek yem ci loolu. mu mel ni bi ab centre tamit bu ngeen di dajee tamit dina ci am solo. waaw buñ ko amee dinañ dinañu gënal buñ ko amee dinañu gënal léegi jàppale na leen ci wàllu formation maanaam tàggat yenn ci handicapé ci yenn liggéey yi. déedéet loolu amaguñ ko ndax ñun suñu bopp rek lañuy ñuy demal tey buñ amee cas ñun ñoo koy traité suñu biir waxtaan def ket ci suñu biir. su suñu kees amee xaalis ñu génne ko bu fekkee matewu ko ñu def euh, benn kii ket ñu dajale jënd ndaxte ñu ngi doon wut ay xale dajale ay xale pour ñu wutale ay kayitu juddu ndaxte kayitu juddu bu amul jàng bi du mën a sotte loolu ñu ngi ci dox ay jéego te ñu ngi waxtaan ak waajuru xale yi pour ñu wutal leen ay kayit. lan ngay tàggoo ak euh, sant ñëpp rek. sant ñëpp sant Cheikh Moustapha Thiam sama borom kër bu baax di sant nag ñi ma bokkal liggéey bi ndaxte daanaka ñëpp a sore waaye koo ci wax kaa gisuñu ma waaye nag dañu yëg seen alal di ma jox may def maa ngi leen ci sant bu baax ñoom ñëpp. voilà nga baal ñu Moustapha dellusiwaat ci euh, solo su ndaje mi hmm. waaw solo su ndaje si tey euh, dañ koy ñëwoon di célébrer journée mondiale des personnes handicapées adduna bi yëpp di ko feetu ñun ñu nekk Touba en tant que président fédération des personnes handicapées de Touba. ñu organiser ko fii ci buntu Daaru Minam le 5 décembre tombeek samedi waaye ñun cant gi comme dañ koy feete au niveau mondial ñun ñu nekk ay Touba nekk ñu nekk Touba nekk ay jullit nekk ay taalib Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul ñun ñun li ñu war ci li nga xamante ni moom la yàlla dogal muy natt bi nga xam suñu borom subhanahu wa taala teg nañu ko dañ koy def ak cant yàlla rek ndax suñu borom dafa wax ci alquran ni la in shakartum la azidannakum boo santee dalay lay dolli yàlla waxaat si alquran ni inna allaha maa sabirina yàlla way muñ la àndal ñu gis ni ñun yàlla li ñu dal yàllaa ñu ko teg te amaana daf ñuy dimbale ñu war koo nangu ñu ni kat journée mondiale des personnes handicapées bu ñëwee dañu war a boole handicapé yi nekk Touba yëpp ñu booloo nekk benn def cant koo xamante ni dañuy sant suñu borom ci ndogal bi nga xamante ni teg nañ ko suñu kaw waaye bu ñu waxee journée mondiale des personnes handicapées du ñu wax mukk te bàyyi état gannaaw ndax dafa am relation yu am diggante état ak personne handicapé yi ba tax ñuy am ay récépissé ba am président national loolu nag bu amee ñu gis ay sooxe yoo xamante ni am na dañ koy wax ci yar ak teggin daaj laaj li nga xamante ni mooy suñu àq ak suñu yelleef sunu diggante ak état état jox nu ko waaye buñ koy laaj aussi dañ koy laaj ak yar ak teggin mu mel na carte égalité des chances yi am na ay sooxe bourse familiale yi am na ay sooxee couverture maladie universelle yi am na ay sooxee wàllu formation soxna yi nga xamante ni danoo jàng ba am ay diplôme ci wàllu formation seen diplôme yëpp mu ngi ci seen suufu laal ñu garde te loolu yëpp dafa nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni handicapé ñoo ngi koy jànkonteel fii ci biir réew mi te loolu jamono dafa toll foo xamante ni loolu dafa war a jeex ci Sénégal beneen bi si mooy dafa am benn loi bu am solo boo xamante ni ñun toujours dañ koy combattre man rawatina man parce que man gëmuma man en tant que Moustapha Thiam président fédération handicapé gëmuma ñuy xeex suñu àq ak yelleef di ko pàcc pàccoo ñi nga xamante ni ñoo jàng ba am diplôme di laaj fonction publique ñi nga xam ne ñoo jàng ba am formation ci diplôme di laaj seen àq seen yelleef ci wàllu formation yooyu mais de façon global ñun li ñu war def mooy laaj suñu àq ak suñu yelleef ci téere bi nga xamante ni Ablaye waa defoon na ko fi tàmbalee ko 2001 ba 2010 muy la loi d'orientation sociale pour les personnes en situation de handicap ñu yóbbu ko assemblée nationale 2010 voté ko mu jàll loi boobu yaakaar na bu ñu demee ba état yëkkati ko ba ñu bind téere boobu li tàmbale 2001 ba 2010 ba mu pare ba ñu yóbbu ko assemblée nationale kon jot na ñu appliquer loi boobu bu ko defee ñëpp gis ci seen bopp loolu mooy li nga xamante ni moom la handicapé yépp bëgg bourse familiale bokkul ci la loi d'orientation sociale boo weddee bu poste bu heure fay jotee boo demee poste da nga fay gis ñatt téeméeri boromi tànk ak fukki handicapé yoo xam dañuy rang di jël seen xaalis kon borom tànk ba bu dee jël bourse handicapé bi di jël bourse te loi d'orientation sociale ba euh, handicapé yi kese ñoo ko moom yaakaar naa loolu dañ koo jël dugal ko ci biir carte égalité bi carte égalité boobu nag dafa am loo xamante ni moom moo ca nekk muy wàllu handicapé yi kon bourse bi bokkul ci li nga xamante ni mooy loi d'orientation sociale bi kon dafa mel na carte égalité bi dara nekku ci parce que carte égalité bi leen rek lañ si dugal bourse familiale ak couverture maladie universelle couverture maladie universelle si la loi d'orientation sociale bi la bokk ak carte égalité bi mais carte égalité bi boo ci génnee bourse familiale la moo ci nekk dara nekku ci président de la république Sénégal ñun ñoo ngi wax suñu laaj suñu àq ak suñu yelleef waaye aussi nit ki aussi bu la defalee dara danga koy wax mi ngi góorgóorlu waaye teewul lu mu góorgóorlu aussi ñun tamit ñu laaj suñu àq ak suñu yelleef li ñu bëgg mooy loi d'orientation sociale bi soit applicable ñun loolu rek lañ bëgg bu ñu sañoon am daara boo xamante ni ak école boo xamante ni les enfants handicapés dañ fay nekk di jàng parce que xale bi moom mooy dooni mag te ku ne xam na ni les journalistes les les les présidents ñëpp ay xale la ñu woon képp ku fi am ndombal tànk tey da nga jaar nga si tuut tànk te man mii di wax ak yéen handicapé la jaar naa si tuut tànk samay waajur buñ ma bàyyi woon jàngalun ma alxuraan jàngalun ma école duma xam dara kon dafa dafa jot Touba gi moo am ay euh, daara yoo xamante ni ak ay école yoo xamante ni les enfants handicapés dinañ leen fa dugal di leen jàppale ku mel nag aidons les enfants handicapés gis nga ni ñuy def dañuy jël ay don di dugg ci kër yi nga xamante ni ay enfants handicapés ñu leen di jàppale di leen tette waaye benn point rek moo ñu dese mooy am daara boo xam dañ fay dugal xale yi di leen jàngal ngir def ci ñoom xam-xam ndax réew mënul dox sans am xam-xam kilifa yi xam ni donte ñoom ay kilifa nu kilifa lañu yéenewuma leen ko mais mën nañ dund ba laago dab leen kon yu mel noonu pour ñu xam ko il faut ñuy ñëw suñu jataay mais parfois da dem ci kilifa ñu yaakaar ni xaalis moo la tax a jóg man nag doxee ma noonu man xaalis laa teg sama gannaaw man li ma gëm mooy ñu jox suñu àq ak suñu yelleef parce que yàlla mi bind doomu aadama wax wala xadd karam naa ba ni aadama ba pare ni mooy représentant Dieu sur loolu dafa foor dafa foor te ñun dañu bokk ci loolu ba pare ni wamaa xalaqtul jinni wal insi illa li yabuduni kon ñun dañu war a góorlu kilifa yi ak taalibe yi ak personnes handicapées yi ñu booloo nekk benn te loolu il faut ànd bi am pour loolu mën a feeñ